salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen giar di leen ñaanal jàmm di ko sàkk bu baax ci yéen di leen jaajëfal bu baax a baax kontaan nañu ci abonné yi yëpp ñu ñëw ak yéen ci xibaar yu mujj jëm ci njënd ak njaay mi maanaam transfert fële ci Europe dinañu ñëw ci lu yaatu nag mbiru kan Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Real de Madrid Paris Tottenham ak kan kii di Manchester City ak kan kii di Manchester City ma ngay pii si gët kii di Cristiano Ronaldo loolee lépp dinañ ci ñëw ci yaatal waaye balaa loolee ki ñu seetaan ñu ngi koy ñaan mu abonné mu bës cloche de notification bi nga xam ne lu ñu dugal rek mu jot ci à temps réel ñu dooree ko ci mbiru kan Cristiano Ronaldo moom mii kat xam ngeen ne ma nga ci ay jafe-jafe fële ca Juve ndax xelam la ca nekk toog ca Juve nekku ca ba tax na match bi doon dox ci diggante kan Juve ak Udinese Ronaldo moo ñaanoon kan kii di Maximiliano Allegri ne ko dama bëgg nga teg ma ci banc bi bu ma départ loolee nag la ko sabab xamuñu ko waaye Cristiano Ronaldo la ca xel ma mooy soppi xar kanam bu ñu sukkandikoo ci l'équipe journal bu mag la nekk ca France moom mi xam la ne ne kii di Georges Mendes moom mooy agent wu Cristiano Ronaldo moom ma ngay travailler ci benn dossier muy lan Bernardo Silva waxoon nañ leen ko wax na Pep laa carrément ne ko dama bëgg a soppi club loolee nag tax na kii di Georges Mendes ñoom ñaar ñëpp moo leen yor Bernardo Silva ak Cristiano Ronaldo moo leen di jaay ma ngay liggéey na ngir lan kii di Bernardo Silva dem ca Juve Cristiano ñëw ca Manchester City waaye loolee pour mu am day fekk ñii di waa Manchester City mënatuñoo jot ci Harry Kane ma nekk ca Tottenham ndax yëf ya dëgër na lool Tottenham nag nee na jaayu ma waaye kii di City bàyyeegul ba léegi waaye nee na bu demee ba xam ne yëf ya mënul yemb moom dina wut attaquant bu mag. te ka muy wëri Cristiano Ronaldo lay doon te Chris moom bañul siti ba tax na sax am na fu ñu foree ne Chris ma ngay woo joueurs yi Manchester City di leen laaj naka foofu naka dëkkuwaay bi moom nag xam na Angleterre waaye mën sa Manchester United la nekkoon kon nag Cristiano Ronaldo moom mii ma ngay bàyyi xel mën City. bu ñu jógee ci mbiru Cristiano Ronaldo dañuy jëli doomu autrice bi di Marcel Sabitzer moom mii ma nga ca RB Leipzig waaye bu ñu sukkandikoo ci Bild Bild nag journal bu mag la nekk ca Allemagne xam la ne ne ñii di waa Bayern Munich ña nga ca tànk jënd gone gii di Marcel Sabitzer. loole nag Bild nee na jubo am na ci diggante kan Bayern ak gone gi di Sabitzer ka mu desee wala fa mu desee mooy ci diggante ñaari club yi muy RB Leipzig ak Bayern de Munich waaye Bayern la mu bëgg moom moo di bàyyi ba yëf ne këtt ne jonne ba mu des ñetti fan muy mercato bi mu def enveloppe bu duun boo xamante ni bu demee ca Leipzig ñoom duñ ko mën a bañ mu jox ko waa Leipzig gone gi ñëw signé foofee di doxal gone gi nag nangu na moom ab milieu terrain la te la muy def mën na ko lool kon Bayern ma ngay deferaat milieu ba. ñu jógee ci waa Bayern de Munich yi dem ca Atlético de Madrid fekk fa Saúl Ñíguez di doomu Espagne nekk ci ay jafe-jafe ca Atlético de Madrid ndax temps yi ci banc bi la ko El Cholo di teg. loole nag équipe yi ko bëggoon jënd bari nañu lool Barcelone ak ñeneen ak ñeneen waaye kii di Chelsea nag moo jëmbat ful la ngir jëli jëli gone gi nee na nag ñii di waa Atlético de Madrid gone gi su ma ko doon jënd abal lay doon. ba déwén ma fay leen far la force loolu mooy achat obligatoire loolee la Atlético di togg nag ak ñii di waa Chelsea kon nag Thomas Tuchel jàlloore yi mu nekkee woon daaw jël lan Ligue des champions ren mu door jël super coupe kon ma ngay wëy di deferu jënd na lukaaku léegi nag sawul Niguez dañu bëgg a indi waaye doomu français bii di kan Kurtzuma moom mii ab defanseur la waaye kat ñii di waa Chelsea jaay nañ ko West jubo am na West lay dem football yi moom mii di Zuma trente million d'euros la ko Chelsea jaayee kii di West waaye nag loole ki ko xamle mooy Fabrizio Romano moom kat la muy wax. bu doon fukk la juróom-ñeent yëpp daanaka dëgg la doon ñu jógee ci doomu France bii di Zuma wutali beneen doomu France di Kylian Mbappé mi nga xamante ni moo yor coow li ci réseau sociaux yi moom mii di Kylian Mbappé. am nañu nag ay xibaar yu ñu jëlee ci Sky Sport ak kan kii di Fabrizio Romano ak journaliste yu baree bari yu nekk fële ci Espagne ginnaaw bi nga xamante ni Mbappé Paris topp na ko ay weer wala ay semaine nan ko yokkal sa contrat yokkal sa contrat mu bañ loolee Paris nag ubbi bunt yi ne ku bëgg na ñëw ma jaay ko Real de Madrid nag yëngatu na bu ñu sukkandikoo ci ñi ma wax noone Real de Madrid officiellement génn na cent soixante millions d'euros teg ko ci taabal ji ngir jënd Chris ngir jënd kii di Kylian Mbappé moom mii di Kylian Mbappé kon yëf ya ubbeeku na Real de Madrid nag ak Kylian Mbappé yàgg nañoo bëggante kuy wut foo fanaan nag ak kuy wut ku la wétali tëjal bunt bi warul leen a boole kon nag yëf ya ubbeeku na Real yëngatu na kon yëf ya léegi léegi di ngeen ci dégg lu leer naññ Mbappé dem. wala mu toog ci fàttali mbappe benn at cepp moo ko dese fële ca Paris bu jeexee nag nee na day buub ay kaakaam dem. kon gaa ñi yëf yi foofu la yam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag balaa loolee ñu ngi leen di ñaan ngeen wéy di abonné di bës cloche de notification bi avec King Ouse Ngary bëgguñu dara rëcc leen te fan yii moom dernier virage le mercato bi deux heures du matin sax mën nañ cee dugal vidéo kon na gaa ñi xerewlu leen rek jëri ngeen jëf.